parcours ak réseaux sociaux c'est vrai que réseaux sociaux yi mu ngi mel ni tout tulleeg màlli euh, ci euh, sama anniversaire astafurlah Saint-Valentin voilà donc <laughs> Facebook Twitter yooyu noonu yëpp euh, gars yi ñu ngi ci di def seen ay message WhatsApp Snapchat partout ñu ngi ci mouvance su amour effectivement dañuy dañuy dañuy nekk ci actualité contexte comme ni nga ko waxee léegi. sama rakk jaa ah, mën euh, contexte de sur les réseaux sociaux seen morom <laughs> yow journaliste ci télé bi la ñu war a dàq bàyyi la fi yow kese les journal di les affaires de la cité di def beneen bi nu mu tuddati. faram fàcce li ci penc mi di faram fàcce. question direct di question direct. y a quoi d'autre comme émission sur cette chaîne je ne vous regarde pas face to face to quoi on ne regarde émission euh, di def émission journaliste yi. Mhm. ah franchement ma <laughs> mais loolu day bari ma gisee. <laughs> oui donc contexte bi mooy euh, Saint-Valentin. donc réseaux sociaux yi dañuy dox ci mouvance voilà réseaux sociaux yi actuellement lu nekk euh, da ciy da ciy bokk ci mouvance comme ni ñu koy waxee Pape Cheikh mais actuellement gis ni Saint-Valentin mais am na a des pour comme des comme am na ñoo xamante ni ils sont pas du tout d'accord ci ci ci ci fête bi dañuy gis ni fête commerciale la euh, à l'origine c'est ça. ñenn ñi ne non non ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy bokk ci mouvement. tu sais ci àddina la ñu nekk apartheid jeex na. Mhm. Mhm. ba ñu libéré Mandela. mais rawatina réseaux sociaux liberté donc chacun est libre franchement de jëlee affaire yi nu mu la neexee. nu mu la neexee voilà euh, voilà et c'est tout à fait normal je pense ah euh, euh, nga d'accord ci ak nga ñàkk. nga ñàkk ci voilà après man li ma dul d'accord mooy man li ma gëm mooy li baax yow li nga gëm daganul. daganul ma jàpp li ma gëm rek après yow li nga gëm tout le temps ma koy critiquer. loolu loolu loolu mooy loolu mooy liberté d'expression parfois da ngay gëm li nga gëm ne yow ci lii nga nga gëm ci position yi nga ko teg mais ñenn ñi tamit gëm ci li les avis sont partagés sur les réseaux sociaux li ci gën jàpp mooy que ça soit mu nekk cœur rouge noir yeeg ñëpp dañuy mm. dañuy seen photo que ça soit mm. wax nañ ko léegi Snapchat euh, Instagram ñenn ñi tamit comme ni ñu koy wax dañ ciy utiliser waale fête commerciale la dañ ciy jaayaale wane waale bu baax euh, lan ni seen produit eh, bu élément bi fale ci régie bi mën nañ ko seetaan ma foog ne dañuy lancer ñu commune next ba pare commune next la. non dañuy démarrer day démarrer ci man mu ne. ah waa ñun duñu commune next papa dama war a yeewee. ñun commune kooku muy kooba koobalu nii kii ma xam ne waaye. <laughs> c'est mon anniversaire. loo diggee woon tey. <laughs> papa soog nga nag. waa ñun am suñu commune next. waaye lii lan la yow. gis nañu yére bi. sama tubéy ji nag tigo la. waaw tubéy ji gis nañu yéen a tubéy ji. sama la ñu ci télé bi Pape Youssou day woote waat de. en fait li garaaw mooy. damay coming. ñoom ñëpp dañoo daanu ba ci Pape Samba Thiam ne non non coming next la ñu nekk. dañuy coming next il m'a bien entendu je lui ai dit on enchaîne parce que coming next bi passé la. Ah. kon dañuy eh, dañuy man dama la war a yeewee ko coming next. mais Ndiaye Ndiaye ci def tey. ah Ndiaye yow ni nga ñëw. wala doxee bi Baye Diouf ñu lay doxee. mais mais dégg nañu. ati ana waa. waaw dañoo bëgg a coming nekk si ñun tamit. léegi mën nañu coming nekk. moo gën a rafet de. ñun dañoo bëgg a coming nekk dañuy coming nekk. non si mën nañu coming nekk entre temps pare élément bi pare quoi. ñëw waaw d'accord comme ñu coming nekk. merci. yéen yéen tey sama anniversaire la ba pare ngeen may def nii. man li ma leen Bijou est-ce que doo jug dox comme Pape Mamadou Ndiaye ñoo nuyu si Mamadou Ndiaye pour nous de notre part s'il vous plaît. Miss Oscar des vacances non déedéet ñun kenn ngay nuyu. Miss Oscar des vacances. aussi. Ah, ah, Miss Oscar des vacances. <laughs> man la eh. tàppal xale yee rek. Eh, xale ci des émission bi xam nga duñ ko war a tuddee manquant show. manquant au pluriel mankito la war a tudd. mankito à partir de l'année prochaine yeewu leen day changer tout tudd mankito. <laughs> rassemblement de mankito bon mais d'accord ok. Euh, coming next kat dafa passé moo tax. waaye da nga ah, koy bëgg nga sànq da nga ne da pour ñu da nga réglementé waat yëpp waaye yow def defe naa jotoo dégg li la je sais que ñu ngi xaar ma wax leen lan la Youssou wax après naa leen wax balaa émission bi di jeex euh, lan la Youssou wax bon d'accord kon ñu coming next comme Aïssatou Paye Fall wax na Mamadou Ndiaye donc nous prépare un sujet euh, bu jëm ci euh, amour Saint-Valentin ak réseau